benn tubaab séngam bu ne xew mel ni muus mu naan pétrole moo nekk ci équipe nationale France bi nga xam ne ay gone la yu am fukki at ak juróom-ñaar wala lu ko moy loole tamit daanaka Afrique gu daan Afrique lan ci mën a coppati ci information leen di indil Mali daanu na mbokkami africain yi ñoo ko daaneel ndax mën na si nanoo tuddee loolu équipe bu France. déedéet kay ay këyit yu ñu leen la bajal ba def leen ay tubaab loolee def leen seen i yow mi ko def ba pare cant ak ngërëm ñeel na la aimé suñuy vidéo ak abonnement yi loolee dana tax seen bi nga continuer wéy di ko gis muy joxe ay information manes na koo commencé Bellingham topp ñi nga xam ne ñoo dàq dugal foofee ca Espagne Bellingham am na ca lu toll ci fukki bit ak benn di ci njëkk sax daanaka moo yor coppati bi kii di Antoine Griezmann Grisou mi nga xam ne fi mu toll nii la muy jaxase ca Atlético loolee tamit daanaka neex na waa Atlético neex na waa Espagne moo yor ñaareelu wërngër bi ki nga xam ne mooy Gérard Moreno moom it daanaka euh, mu Villarreal coppati na ki jël ndàdde gi Robert Lewandowski di lu nu xaarul woon conférence de presse ki lii di Carvajal yëkkati na ay kàddu jiitu Carlo Ancelotti topp ci ginnaawam mel népp garde corps xam xamle ne ni moom mii di Carvajal pare na cinq sur cinq cent pour cent euh, fële ca Madrid bu ko defee bu subaak jàmm mu mën a teg ci loxo yi lu mën a leer ngir supporteur yooyu mën a bég Bellingham Toni Kroos Fede Valverde Ceballos Mario euh, Martinez Nico Pas Théo Rodrigo Sos bi ak ki nga xam ne moo nekk Brahim ak Gonzalo ñooñee ñëpp boo leen boolee daanaka yokk ci Carvajal Alaba Nacho Vasquez Fran Garcia Rudiger Mendy daanaka gardien yi nga man ci lu ne ak ki nga xam ni mooy Gonzalez Cannavares loole lépp nag séngam ak entraîneur ba di Carlo Ancelotti ak doomam président ba di Florentino Perez équipe bu Real Madrid tey mat séngam nag war a xaar Naples wala mu dajeek Naples match ba du yomb benn yoon ci ñaari côté yëpp Naples nag damay yaakaar Real napp ko nappaaje ko match baa ngoogee Mali toog na France ku dóor